Hôtel Dior Grand Yoff la nekk Pape Doudou mu ngi nekk écurie ndeysaan Hôtel joor Hôtel Dior ak Pape Doudou Pape Doudou waaye moom Fapal dañ ci def fa ah xam naa dañoo juum rek waaye waaw nee na Pape Doudou la tudd de Pape Doudou juum ci bi niñ bind dañoo kay dañoo juum waaye drapeau Lutte TV la ñuy bëre ndeysaan drapeau Lutte TV kan moo ci Hôtel Dior hôtel Dior de yaakaar naa ni moom moo la moo la wan ginnaaw Lamine. ah wala Pape Doudou Pape Doudou moo la wan ginnaaw. hôtel doon laaj de. hôtel Dior moo la wan ginnaaw Pape Doudou nga jàkkaarloo Lamine. Pape Doudou kon moo ngemb ngemb bu bleu bi. ngemb Lagos bi waaw ngemb ngemb Lagos bi moom la moom la ngemboo Lamine ñoom ñaar daal en tout cas ñu ngi jàkkaarloo. ñaari xale yaa ngi noonu hôtel Dior. hôtel Dior moo la wan ginnaaw Pape Doudou moom nga jàkkaarloo moo yor ngemb lu bleu li. Pape Doudou waaw drapeau bi de mooy drapeau bi ma gën a ne ci lamb ji. drapeau lu TV. Ah. nga xam ne Mouhamed Dieng ndeysaan mi ñu ko tuddee. waaw ah. couvre bu ñëpp xamee bi ko doo xam ci lu baax. Ah. moom moo nekkoon ci ginnaaw di liggéey moom ñoom Lamine. kon ndey day baax parfois ñu leen ni doo kon ñaari xale yi gis nga combat bi équilibré li lañ doon wax mooy violence lii boo koy njëkk a xeex ñaari mbëri tolloo ba pare nga boole leen ñu kenn du ñoom ñaar tolloo bu baax n'est-ce Mohamed ñëwul xam naa daal daa bëggoon da nga koy laaj enveloppe. non Mohamed comprendre naa ko daa feebar. ah non maa laa mujj di jeexee fii takk na ko de takk la de. jàppante ne. doy la. waaw waaw. arbitre am ngeen problème. arbitre yi am nañ problème. borom ngeen bulu bulali. moo daan moo daan déedéet borom ngeen. moo daanu tey dafa teg fes ba pare xoolal fes bi. mu ne lan. arbitre bi mu ne lan. arbitre bi bu la lan. lan lan la ngeen bulu bulu li daanu. lamb ji jaxasoo say bu manqué dafa teg dafa teg la ilaha illallah. Eh, Adama am nga mbir. combat bi yéeme la. Eh, nañu dem vaar vaar vaar. Lutte TV bëre nga waxoon naa la ko ku daan saa yu la neexee nga génn. Lutte TV jël na la wasaare jël na bari yëg-yëg nga am tay ci lamb ji ak am li. waaw xanaa kontaane ak grand bi waaw ginnaaw bi ma sant la ba pare jullit si nga xam ne sallallahu salaam maa ngi sant sama ñaari waajur di sant tamit képp kuy wuyoo tudd hôtel Dior rek maa ngi lay di sant di sant sama copain yi fi teew ak sama supporters si mel ni sama grand Adama Diouf Abdou Aziz Diouf wala se wala Babacar Diouf Pape Sara Senghor ak sama doomu ndey bi Daouda Ndour waaw maa ngi bëgg tamit aussi. waa Famb sama dëkk wala waa Jaxaaw boog wala waa Fatick ah ma leen di bëggee yéen ñëpp ñoom ñëpp di leen gërëm bu baax a sa ñaata combat. man bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. sama trois victoire benn défaite. trois victoire benn défaite. waaw. de champion. maa ngi jéem maa ngi jéem. Ah. di nuyu sama président écrit. ni nga bëree ba daan ah ni nga bëree ba daan. ni ma ba daan. waaw non ba daan moom xëy na yàlla moom may ndam rek waaw yàlla tey bu xe lu yomb la man daal wax ni nga bëree ni nga bëree. waaw waaye dama ko sol naax après bu ma sonee naax kotu ko kotum mu kotum biti après bu ma tuuree ma teg sama benn tànk xëcc ko mu teg fees. ni ko daanee loo njëkk xalaat. bon ma daanee xanaa sant la rek gërëm sama borom rek. waa jël nga drapeau Lutte TV. waaw jël naa drapeau di waaw di si kontaan di kontaan tamit si waa Grand Yoff ndax man instant yii man man damaa gëmoon doomu laa doomu si laamee doomu grand ndax man bi ma nekkee tout tànk ba tey maa ngi Grand xam nga di bëgg waa Grand Yoff bu baax a baax li jële jëlees Grand Yoff asalem Grand Yoff cité ba waa ba waa ba waa ba troisième koñ maa ngi leen di ñoom ñëpp. amiin jël melen daal xam nga ne buy mat yow lay mat. <laughs> waaw loo loo bokk Adama Diouf. Adama Diouf Adama Diouf sama grand la moom yar fii Dakar quoi. moo la jàngal bëre. waaw voilà moom Adama Diouf ak Ibrahima Diaby ñoom ñaar ñoo ma jàngal bëre. waa Ablaye tamit sum production teg ma si yoon. som waa waa suñu président dëgg ma si yoon. et puis waa Jaxaw maa leen di sant maa leen di gërëm. ndax gis ma bëggee gis naa nañu sonn ci man surtout waa femme di nuyu sama yaay bu baax ak sama papa Abbas Senghor ak sama rak yu baax nekk si biir dëkk ba. fanaane allah jaxaw laay fanaane guddi guddi siin kay te buñ jógee ci loolu maa sant nga xamante ne mooy mooy waa Fambu sama dëkk ak waa jaxaw ak waa commune Thiaré ñu si ni ah, monsieur le maire Badara ak Emily Faye sama jërbaat ñoom Ibou Diabé ak sama grand bu baax bu dëkk Diouroup Omar Ndour ko xamante ne lépp nag si man moom ak Mbaar Faye ñoo ko def. waa di sant waa réseau Fatick yëpp. léegi bàyyi la Adama eggale ko. amul ko fii. mais Adama da nga nekk ci forme. non non man toujours eh, ci lii moom wax laay lekk du ma toog du ma def dara. loolu moo tax ma nekk à forme. ku fa wax ne Adama màgget na ak ci erreur bu yaa ngi ci waaw li may a baax. problème boobu laa am. Ah, da nga am doole macha allah toujours foo ma gis rek maa ngi ñàpp rek nekk naa barmat boo xam ne ku ma mooy su ma gars yi koo mënee ba duñ la jël. lu ma kaas mooy yow ba ngay takki say gang boobu nga woo ñoom liiru jaan ak ñoom lu ñor rek moo tax la bu ngeen ma wootee damay xool suma affaire bi parce que tappale ngay yore lu kenn xamul lu nooy lu nooy du ngeen ma ko yegal bu dee doon nag ndax dee ngeen doog maa yegal loolu mënu ma ci yéene mafia bi ci nga ah, ngeen ma ci boolewul nag tàcc tàccaaral waaw bi yéen ko xam man ah. nu bokk ci affaire yettaale boobaale bu amee du ngeen ma ci boole. ñu ngi tuuti da seen affaire boobaale seen affaire loolu ay tapale la. baal ñu non baal naa nga. mais nag doomu yaay seex la man dama gaaw a baale mais kontaan. lu ma kontaanee mooy waa Jaxaaw. gis nga diw baax na mbokk nañ ko wax. boo xoolee fi waa Jaxaaw ñoo jëlee ay kaal seen maire yi Badara Ndiaye moo leen utal ay kaal utal leen ay mooy a ñoom ñoom Ibu ñoom Ibu Ibu Ibu Jon ak mbor yi nekk Jaxaaw yëpp assurance Latir Diagne ñoom ñëpp ñu ngi seen ginnaaw mbor yooyu yëpp boo gisee gisoo leen ci biir mais ñu fa lañ yoon tey koñ bi fees del loolu yombul bu loolu weesoo nag kontaan naa bu baax a baax ñaan ndam bi ñu am ñu am nii yàlla na mu jig boo na nga min arène bi miin naa ko fii adressé ngoon moom kay bu amul ay ay ay kay xam naa ne moom mbër may indi fii day defaraat. code yi da nga mel ne nga koo xam code yi. waaw xam naa kontaan a nag Lutte TV nag sama booy bu jëlee drapeau dama a kontaan. ndax kon nag boo ci nag A. jeex na kon loolu bu amee nag kontaan naa bu baax a baax nag di gërëm Abdoulaye Diop xam ne wax dëgg fu ñu ci écurie Mame Mamadou di gërëm Adama Ndour écurie Mame Mamadou dañ ñu jàppale bu baax a baax. sa combat fan la toll. suma combat gars yi ñu ngi wax rek mais gars yi dañuy ruux rek xaw ma lu ñu may ruuxee gars yi nee na mbapat laa man mënu ma loolu jaru ko. kan la non non bari na kay bari na kay man kay bari lay dox xam nga man koo fi wax rek mu yaakaar ne da nga dugg siin ñëwaat siin dañu yaakaar ne da nga dugg jaxaaw ñëwaat rek. wuli nee na ba ngeen ba gën a ngeen leeral fan loolu mooy lan xanaa pajaas la loolu pam kan moo ko soxla loolu bo rek ni barke wuñ daan ko moom ko maam mi da woon fexe daan mais wu ne xaw ma lan la bëgg ay tapale nag la yore yaa ko ciy ruux war nga ko wax mu bàyyi tapale bi ah mu doon dóor waaj bu baax waaye ban dóor waaj bu baax. garam bu baax a baax nag kii Ablaye Diop mi ndax ñun dafa sonn ci équipe bi te kañ jëlul nag yóbbu jox ko kañ jëlul dara jox ko. boo combat bi taxawee dafa yëkkati alalam def ci te loolu yombul te amul lan luñ ko defal. sant nañ ko baax gërëm ko waaye. wuli wuli Senghor mii nga gis nii. waaw mbokku mbokku Ousmane Senghor. maa ngi lay dóorkat bu mag non du ma door kas sax mais géwal amul ko defal lu baax rek moo am. mbëkk nga def nag xoolal spécial nag ndax man ci campagne bi nag wax dëgg directeur mi nag Mamadou Touré moo ma jëloon yóbbu ma caare te man comment nga gañe. ana ana sa waay docteur ma ku yeboo ku yeboo loolu doo ma ko door na gaay mu daan. waxoon naa fii ne Tamsir Faye kuur laa yoroon day door gaay mu daanu euh, nu mu tudd directeur Kout. Euh, nu mu tudd Maguette Sène day door gaay mu daanu docteur Macoumba Diouf day door gaay mu yàlla kenn rek laa am mu dem ba final gaay am nuñ ko ren mooy ku ma doon sama lambu ji.